ci lu jëm ci wàllu alam bi jëm na ci loolu tamit téere bi li ñu jàng loo xam ne jëm na ci li ñuy wàllu le passif social mooy déggoo yi ñu xaatimoon te nguur gi jafewu ko ñu boole ci tamit lu jëm ci li nga xam ne nii tey mooy effective yi am ci école bi programme yi ñuy jàngale nga xam ne ñëpp xam nañ ne boo ko seetee ba ci biir ma nga ay programme yu jóge woon depuis indépendance ba tey te mënuñu ko soppi ak tamit kàllaama yi ñuy jàngalee nga xam ne tey ñëpp jàpp nañ ne bu buñ ko defoon ci suñu kàllaama réew yi nii maanaam xam-xam bi dana gën a gaaw ñu boole ci nag ne lu jëm ci wàllu déggoo yi ñu xaati moon daf ci am yoo xam ne mënatul xaar kon tey lu jëm ci wàllu situation décisionnaire yi nga xam ne nii ñoom ñooy kumba amul ndey ci administration publique jot nañu indi ci lu tamit ci li nga xam ne nii mooy yéex-yéex yi tënk carrière yu jàngalekat yi ñu ngi rafetlu xalaat boobu nga xam ne président euh, de la république indi na ko muy la digitalisation de la fonction publique ñu jàpp ne warul doon tamit wax joo xam ne dañ ko wax rek sànni waaye lu ñu war a jëfe